ginnaw machine judiciaire bi nga xamanteni ni koy accéléré bi ñi installé yi nga xamanteni moy 27 magistrats yi nga xamanteni ñoo composer pôle judiciaire financier jëmale ko dal ci cadre bi nga xamanteni mën nañ ko tuddee reddition des comptes tant réclamé jëmale ko dal ci peuple bi souverain ginnaw bi ñi facilité les plus arrestation préventive jëmale ko ci exécution li nga moy mandat de mandat d'amener le ko ci instruction li di parquet général mën na superviser li nga xamanteni moy parquet de la république ak li nga xamanteni moy pôle judiciaire financier ainsi que li nga xamanteni moy parquet d'instance le ko daal ci ay direction de police de l'air et des frontières ñi dal di mettre en place les loo xamante ni ay mesures la pour que dal ñu dal di interdire bép nit bo xamante dal daal ciblé nañ nga génn li di territoire national bi à l'encontre jëmale ko dal ci 300 personnes muy ñetti téeméer yo xamanteni ay anciens dignitaires li nga xamanteni moy régime Macky Sall la woon suñu sukkundiko ci li nga xamanteni dal dévoilé nañ ko muy ben extrait bo xamanteni ay liste la ñenn ci ñoom dal daal dinañ leen ciblé muy li nga xamanteni moy direction générale de la police nationale di DGPN jaarle ko dal ci intermédiaire li nga xamanteni moy mooy DPAF ñom ñaar dal dañuy nekk en première ligne pour interdire bépp sortie de territoire national bépp nit bo xamanteni ni dañuy soupçonné nga dal di impliquer wu jëmale ko dal ci ay malversation financière sukkandiku ci ay spéculation foncière ak li nga xamanteni moy détournement des ressources naturelles ki seen ay profit mu doon ay personnalités yo xamanteni tay tey dañu rendre compte lepp lo xamanteni dafa soxal ay dossiers yo xamanteni ni nañ ko lii de justice mu doon ay mesures yo xamanteni ni mën nañ ko di conservatoire ni salué par une nouvelle autorité yo xamanteni ne nek ci réew mi di yombal lepp luy délivrance colis convocation arrestation ay nit yo xamanteni daf leen concerné jaxlé ko ci exécution bi nga xamanteni moy ay mandat de mener suko ko ñi émettre ko par parquet de la république li di pôle judiciaire financier ak parquet d'instance ci autorité li nga xamanteni moy parquet général bi nga xamanteni mo nek ci wetu cour d'appel bu Dakar ginnaw enquête nak bi nga xamanteni bu xoot bo xamanteni def nañ ko dañu nekk nañ tey en mesure pour révéler dal lu toll ci 300 anciens dignitaires yo xamanteni dañu bokkoon ci régime Macky Sall ñom tay dañ leen frapper par ñu interdire leen ñu génn li nga xamanteni moy territoire bi ki ci njëkk Lat job la Abdoulaye Seydou Sow Manar Sall ak ki nga xamanteni moy Mamadou Gueye di ex DG des domaine parmi ñi nga xamante ne daal dañuy retrouver wu tudd nañ ci tuuru Samuel Sarr Farba Ngom kii nga xamante ne nag mooy euh, Samuel Sarr indi na démenti jamono ji ñuy wax loolu moom jaar na ci aéroport bi ba dem foofa ca turki qui di Moussa Sow jiite fi Piment ak ki di Lat Gabriel Kane moom mi nga xamanteni yorul dara ci Sénégal momi it ci Mansour Faye qui di Cheikh Omar An ak ki di Moussa Bokar Tiam, Abdoulaye Seydou Sow Aliou Sall di rak ci président Macky Sall ki di Mamboy Diawo Mamour Diallo ak ki nga xamanteni moy Mamadou Gueye Manar Sall Antoine Félix Diome nekkoon fi ministre de l'intérieur ba noppi fi ministre de l'énergie mam Mbaye Niang bi nga xamanteni ni dafa échappé jëmale ko dal ci ay mesures ndaxte amono ji ñi wax ak mom mi ngi à l'étranger étranger ak yenen ñoo xamantene tay tey ñi ngi ci liste bi mu doon lo xamantene du lu exécutif la suñu sukkandikoo dal ci ay directeurs généraux de société nationale ay administrateurs yo xamantene ni ñoo doon gérer ay fonds publics ay hauts fonctionnaires ay hommes d'affaires yu influents yo xamantene bokku lañu également ci liste bi lepp luñ ci mëna japp dal lu tollu ci quinzaine de d'âge di ay directeurs de l'administration générale de l'équipement ñom aussi ils sont concernés comme nous ko mentionné précédemment jëmale ko dal ci ñi nga xamanteni ay voleurs d'état la ñu tuddee leen ay criminels financiers ñom dal dañu réussir dal di enfuir foofu ci étranger ginnaw bu mu suscité une grande déception jëmale ko ci sénégalais ñi reprocher dal li nga xamanteni moy acteur régime bi nga xamanteni ni Diomaye diriger ak ki nga xamanteni moy premier ministre jëmale ko dal ci ay négligence yo xamanteni ne nañ ko dal ci ay nit yo xamanteni dal daal dinañuy échappé ginnaaw nag lépp loo xamante ne reddition des comptes la djem ci ay suspicion yo xamanteni dal daal mën na peser ci ay anciens dignitaires mën nañu sukkandiku dal ci accusé de tentative seen sécurité. Ginnaw loolu nak lepp lo xamanteni fortement dañ ko enrichir ñu daal di soupçonner daal di chercher déstabiliser li nga xamanteni moy mooy réew mi jëmale ko dal depuis que fi ñu nekk foofu à l'étranger mu doon ben tiitange bo xamanteni ay nouvelle autorité jël nañ ko lu ñu mëna xayma dal suñu enquête du tollu ci 300 ministres ay DAGE ak ay nit yo xamanteni dañu am influence fi dañ leen interdire ñu sortir des territoires pour que ñu jébbal leen li di pôle judiciaire financier ñu def seen liggéey xool su dañu jël alal réew mi ñu delloo si waat ko